bi ma ko Cheikh mun Mountakha di wax dafa ne ma maa ngi lay yëgal xabaar bu neex kon ñii laa leen koy waxee ndax lanti noor rek lañ fas yéene doon nee na weeru koor bi incha allah dañ koy delloo fa mu nekkoon dina toog teew lu njàng mi kuréelu xaside yi di yëkkati xaside sëñ Tuubaa yi loolu comme ñu ngi koy defee fañ ko daan defee ci biir kër sëñ Tuubaa kon ànd nañoo équipe technique yi euh, direction générale ñu ngi koy xool dañuy dinañu génn ay plan d'action opérationnel ci fànn gu mu ci mën a doon dimanche gën ngaa sori loolu kon na ko ñëpp xam li nga xam ne nag mooy assignation euh, gam euh, li nga xam ne mooy assignation koor gi na ko ku ne def noo xamante ne day mel ni mooy téeñ bi nga xam ne da ngay wane ne attan nga ziar waaw téeñ nag moom ku fas yéene yanu <clears throat> moom mooy jël téeñ di ko teg ci boppam sëñ Mayib Guèye day euh, kilifaam li nga xam ne mooy wasilaam di sëñ Daam Abdourahmane Lo mës na am gaal goo xam ne ñetti nit sax attanuñ ko te mu war a dem ci sëñ Moodu Mustafaa mu ne kan moo ko mën a yóbbu sëñ ne ko bu ñu ma ko ñemee dinaa ko kon loolay teeñ nga xam ne kon pas-pas boobu ak façon boobu loolu mooy teeñ ci baatin mais nag teeñ ci saayir jël loo xam ne koy teg sa bopp ngir li ngay at yanu mu woyof waaye bañ ko ko defalee day na sëñ Moodu Mustafaa ci daaru Xuddoos gii ci Touba. ba mu dikkee sëñ Mourou Moussa ne ko biig de ba ngay jàng ca ndaam gis bu euh, ci ginnaaw gee maa ngi koy teewlu te boobu rajo amul kon kooku doy na soññe ci suñu kuréel tey kon nag ñun am na nu sas ñi nga xam ne ñoom la nekk roy ci seeni tànk ñooñu ba ñuy dem yóbbuwuñu seeni ngànnaay dañ ko fee bàyyi ngànnaay yàggoo kon nañu nañu laxasaayu waat xam ne liggéeyu koor gaa ngoog sëñ Abdou Lahad nag daan wax ne ñaari ngi nii yoo xamante ne du ma nangu ku ma ci mën ci liggéeyal sëñ Tuubaa weeru safar ak weeru koor <laughs> dafay alali sëñ Tuubaa yoo xamante ne moom ku ne man yëfi sëñ Tuubaa laa yor war naa feeñ ci seen biir kon maa ngi ciy soññaat daara yëpp ay ca murit bu kenn bu kenn arrière bu kenn tiit bu tenn kenn geesu lépp dina baax te sëriñ bi it fi ñu toll nii fas na yéene yëfi yomb ci ñun waaw bëgg na ko. te ko ko jekku la nag ndax du sàkku ci sunu boroom loo xamante ne day yéex agsi sax waaw te sàkkul nañu ko waaw nan ànd ak rafet jot te góorgóorlu loolu laa doon xamalal daara yi na gaa yëpp jekk sëñ Lamine Diouf dina ci ñëwaat su ko defee ñu xam ne euh, liggéeyu koor gaa moom képp koo xam ne daal bëgg nga liggéeyu si ziar bi woyof ci yow toy koor gi moom na ko jàppee teeñ rek te def ko liggéey bu gaaw bu dee xar bu dee ginaar bu dee euh, Euh, bu dee xar bu dee ginaar bu dee fruit bu dee diw bu dee ceeb bu dee suukar nga xam ne gën ngaa néew ñaar ba ñetti saaku par jour la ñuy utiliser ba ci tey jii démb rek sëñ Babacar Diallo mi ngi may wax ne glace gi mu daan def nga xam ne bis bu set ah dina am glace goo xam ne mbooleem kuy ñëw kër sëñ Tuubaa yi glace gi ñu lay jox moom def ko doon fàggu chaque chaque année ñi nga xam ne mooy boulanger yi ñoom sëñ am di loo lañ daan def ak ñoom sëñ Moustapha Mbaye lañ doon def côté Touba kon loolu moom su ma ko tuddee rek bàyyiwuma benn membre na ñëpp xam ne sëñ Muntaxa yi nee na dama lay wax xabaar bu neex liggéey koor gi day delluwaat fa mu nekkoon tey jii sëñ Alioune Guèye ak sëñ Lamine Diouf dama leen booleeg ay gan yu tedd yoo xamante ne dañu waroon dem ci sëriñ bi bañ demee ci sëriñ bi Alioune Guèye de bu ko sëñ bi joxee loxo def ko ne bàyyaa ngi wàcc xasida yi kon xam nga man su ma ko informé wul woon dinaa am kersa si Alioune Guèye ne ko sëñ Youssou lépp kon wàññi ba jekk kon jërë ngeen jëf dama ko doon leeral daara yëpp ba kenn ku ne xam ne man bàyyiwuma kenn ñi ñu àndal ñëpp kenn ku ci ne jàpp naa ne sët nga ci ñi àndoon ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ñi àndoon ak sëñ Tuubaa kon xeebuma ci kenn ku ci ne cër boobu laa la jox kon ay ca murit ay ci murit. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey liggéey